محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله ربي عالم الشهادة والغيب والصلاة والسلام على النبي الحبي سيدنا ومولانا محمد بجميع الآل والصحب ورضي الله تعالى عن القدب مولانا أبي العباس النبي مولانا أحمد بن محمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه أهل العرفان مبكي ديني ييغا خامني yéen ñuy seetaan à travers du monde ci asfiya point org seen émission sunu tariqa moo dellu ci ñaareelu waxtaanam walla jotaayam di waxtaan ak ñun ba tey ci suñu tariqa sunu tariqa nag sunu ko waxee daanu wax ki yore tariqa bi ak ki ko jiite ba ñu xam ko keroog waxtaanoon na nag yéen ci kongre bi nga xam ni góoru yàlla yépp ñoo ko mas a def kuy góor yàlla bokk nga ci ca alamul arwaax ci jéem a découvrir kan la ñoom ñépp ñu wane ak lot ak tële pour xam ko ñu ne nag léegi te mënuñu ko ñàkk xam nan ko laajte ñu ni kuñ koy laaj ñu ni mënuñ koo laaj kuddul moom nanu ko laaj moom mooy kan mu wax ñu moom mooy kan ñu ni kooku nag xel du ko laajte ñu ni lu koy laaj ñu ni xol xol ci boppam laaj ko ni ko cheikh yow yaay kan ba kenn mënu laa xam la mu tontu mooy pour xamle ni li tax mënuñu koo xam fa mu làqu la mu ni tasattartu an dahri bi dhilli janaahihi fa sirtu ara dahri wa laysa yaraani mu ni tasattartu nëbbu naa an dahri ci sama borom ad dahru fii mu ngi firi yàlla nëbbu naa ci sama borom bi dhilli janaahihi ci keru wàllam ci làqu boo xam ne làqu na ko ci yàlla te yàlla ku mu làq kenn dootu la mën a séen waxuma la ak di la gis fa surtout nee mujj araa di gis dëhër yi sama jamono te jamono mooy àdduna lépp bi mu sosoo ba bi àdduna di tukki wala sa yaraan yi te sama jamono ak ku nekk ci jamono mënumaa gis mënumaa xam waaw yow mi nekk ci biir néeg bi làqu ci fenêtre bi ubbi ko yërndu la ca biti yëpp mën nga koo gis waaye ña ca biti mënuñu laa gis mu ni falaw tas alil ayaama masmiya maa darat wa ay na makaani maa araf na makaani ni falaw tas ali soo laajoon sax al ayaama fan yi soo laajoon fan yi ak li jur fan mas mi sama tur rek maa darat xamuñu ko fan yi te li jur fan moo di ay heure moo di ay minute moo di ay seconde fan yi li nu jur ak li leen jur fan lu mu jur fan moo jur semaine moo jur weer moo jur at ñu soo leen laajoon mas mi sama tur man Cheikh maa darat xamuñu ko ñu ni ko kenn xamul say tur mu ni sa kenn xamul sa tur mu ni déedéet parce que alam bu nekk monde bu yàlla bind bu nekk ak na ma fa tudd moo tax kenn xamul sama tur mu ni alamul arwaax maa nga fa tudd Ahmad Arrabbani soo demee ci alamul arwaax Ahmad Arrabbani rek la ñu xam mais soo ñëwee ci alamul ashbaax mooy fii ñuy dund ñun mi ngi fi tudd Cheikhu At Tijaani te soo demoon ca alamul arwaax ni ni Cheikhu Tijaan kenn du ko xam waaw mu ni barzax alamul barzaxiya na mu fa tudd bokk ak ni mu tudd ci alamul arwaax bokk lakk na mu tudd ci alamul asbaax alamul barzaxiya mi ngi fa tudd xawsul bariyati moo tax gis nga maam Xalifa Ñas ni xawsul bariyati miftaaxul wilaayaati cheikhu tijaani yi misbaaxu duju naati misbaaxu duju naat mooy làmp bàmmeel yi ñu ne alamul baxriya géej sax ni mu fa tudd bokkul ak ni mu tudd ci yeneen alam yu ma la géej ma ngi fa tudd xaysul hattaani xaysu alamul bayda mu di àll xamoo àll nit da koy wax rek di ko dégg rek waaye mësu koo gis àll piir nit àggu fa foofu cheikh ma nga fa tudd salma moo tax sa maam baaba kër si naan hal min sabilin ila salma moo tax koo gis am na lu mu amul lu ko neex lu mu bëggoon a am te amu ko Babacar ni man de dund gii may dund fii ci àllam bii neex na ma waaye bi ma gënaloon mooy ma dund ca àll ba الله ba pire Cheikh Salma la fa tudd mu ni hal min sabilin ila Salma ndax am na yoon bu ma ba àgg ca Salma te Salma mooy Cheikhu Tijaani ni ko yoon bu Salma fu mu nekk mu ni bi yab riit tey jii ku la laajoon Cheikhu Tijaani fu mu nekk da nga naan faas waaye dëkkam ci àll bi yab riin la tuddu mu ni tawqurti hali ilaha kana kaana yab soo demee ci malaul aala fa nga xam ni nag fa la malaaka yi di dund sidratul muntaha fa la nekk foofu la xadaraat yi nekk al ilahiya foofu la góor yàlla yi di tase fa la ñu xamante foofu cheikh mi ngi fa tudd sanaan sanaan moo tax imaamul Busayri bu muy wax rañaan gi mu ni rañaan gi bi yonent bi départ ci baytul maqdis yonent yëpp la àndaloon ndax yonent yëpp ñoo dekki woon fekk ko fa mu jiite leen julli ñu ànd ak moom waaye yonent bu ci nekk da ngay dem ba ci sa maqaam rek am lu la téye dootoo mën a dem ci rañaan gi ba ñu dem ba gis ni yonent bi rek ka des ak jibril ñu ni waaw yonent ya waroon a dem lu leen téye ñu ni sanan moo leen téye moom la junj naan lam yu wuuka fi ulaaka wa qad xaala sanan lam yu saawu ko mënuñ tolloog yow ànd ak yow fii ulaaka ci sa rañaan gi waxat xaala mbir moomu diggale na sa digganteeg ñoom sanan sanan mooy cheikhu tijaani min ka duunahu wa sanaaw moom la alaaj Mansour ni keroog ba ma demee makkatal mu karam ca madinatu munawara ma yegsi ci xabru rasul yëgoo ku fa ñëw wax na noog yow ñu la ñu la koo bëgg a gis ku fa dem nag suñ la ne koo bëgg a gis da nga naan sayiduna muhammad mën nga ko gis mën nga ko ñàkk gis yow mi demoon ci kër kilifa nga ni koy seet nga ni sëriñ bi walla kilifa diw mën nga koo ñàkk gis waaye soo soo laajtee ki sës ci moom ni kooku laa bëgg a gis kooku soo yeggee ca moom mën ngaa yegg ci sëriñ ba moo tax moom Alaaji Mansuur bi mu yegg see ñu ni ko koo bëgg a gis mu ni secrétaire yonent bi te di sanam ñu wan ko sanam muy cheikh cheikh wan ko yonent bi fa la ma danaw naa min lu ca teg sana sanal badri sanaa googu tuuru cheikh la moo tax képp ku jaayanteeg moom nag jaayante ngaak ko mel nga ni ka jaayanteeg yonent ya wa faaza man bàyya àllawliya misla lidi xat bàyya lambiya moo tax sunu sëriñ ñu ñëpp ki nga xam ne ci battam la nu naanee muy cheikhul haaji malik abdoul aziz di sëriñ mawdo si ni ko abal abbaasi yaa kanzal maali wa yaa faxra zamaani bila misaali wa yaa badran ya chequ bi kulli qutrin mu ni ko yow yaay weer wi nga xam ni yaa ceeñeer yaa sànni say ceeñeer ci bépp gox yaay badru bi yoo xam ne yu niirul kaw na yaa leeral univers bi yëh di yaay gindi bépp taalibe bu jàpp ci yow lil jalaali ba ci yàlla fa hada qalbu abdin du tiraabin yu am min ko faydan bi tawaali kooku jaayante na ak moom ni ko wasarmul ahdi lil mahbubi shay'un ashaqu alal muridi min annisaani mu ni ko dog kóllëre gi ma seq ak yow wala keneen ko ko seq yow kóllëre googu yal nañu ko yàlla sàmmal parce que su dogee moo gën a tiis moo gën a metti boroom xeej bu am doole yëkkati xeejam te xam paddu xam fi mu koy dóor وما لي غير بابك من ملاذ أيا شيخي فجدني بالوصال منك تبناك الرسول وقال إني مرقيكم إلى سبل المعالي وأعطاكم جهارا خير ورد به نلنا الفلاح بلا جدال به الأقطاب نالوا كل سر فهاموا في متاهات الجمال سكرة فيكون شيخ مومو kenn mënu ko xam waaye ñu ni mi ngi gane àdduna ci gannaaw bi yonent bi gàddaayee ba mu am mille cent cinquante ans junni at ak téeméer ak juróom fukk ñu ni loolu junj la soo mosee walla nga xam di nga xam loo ci xam loolu mooy lan mooy mawlidul xatmi mooy tey mooy juddug kii mottali mission wu yonent bi gis nga yàlla mënoon na ko indi ca saxaaba yi mais daf ko denc ba keroog bi mu gënee àdduna soo calculer bi yonent bi génnee àdduna euh, soo calculer bi yonent bi ràññaanee ak bi cheikh gënee àdduna ñu ni la mooy mawlidul xatmi tey la guddik judduk kii mottali mission wu yonent bi mu ngi gane gane àdduna ci ay nu maad yi ci néeg bu sell bu tedd bi nga xam ni su ngeen xoolee nii ci écran bi sama gannaaw di ngeen ci gis néeg bii ci la Cheikhul Tidiane gane àdduna way juróom yu tedd ya way juróom bu góor mi ngi tudd Cheikh Mahamad Fathan yaayam mi ngi tudd soxna Lalla Aïcha ñi nga dégg ñu naan lall yëpp moom la leen tuddee ويكاد بني ما أنجبت حوض من الغواني في كل ما مضى من الزمان كمثل أمي شيخنا الرباني ولا شيخنا التجاني مودي عائشة الطاهرة الحساني شيخ مومو تي أي نما ديجي في لدك أي مامم فلو ندك فلو نجدو موم فلا سسو نكفا جدو رك فوفو نات أي نما دي نات ويكتب أن حصل مفخر الأولى حين ولد بعين ماضي ذا بفضلها شهيد مو أم أك واتو يالا ديكو واتو ديكو سامو يالا دفكو نب ديكو سامو بلامو نارتموم مك نخامو نيوكو كن نخاموكو محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى محروسا بالعناية يالا ديكو غاردي تندم بلم محفوظا بالرعاية بالرعاية cheikh moomu karimul axlaaqi ku tedd jikko la wal xilaali ak melokaan tayibu nafsi wal fi'al ku teeyoon bakkan la tey li muy jëf li mu daan jëf day rafet day sell ànd ak loolu kasirul xayaa wal adab ku bari woon kersa la bari teggin jamilul muraqabati wa talab lu muy fuglu ak lu muy wut ak lu muy sàkk lu nekk da koy wut ci anam bu rafet muqbilan alal jiddi wal ijtihaad léppam daf ko defoon ci dëggu daf ko ci farlu maa ilan ila rushdi wal mu jëng lépp lu bon seeti njub ak di wéet yàlla xafida alquran al azim fii sigarihi bi muy nekk xale bu ndaw la mokkal alquran mokkal goo xam ni du mokkal yi baat ak rek ak mën koo tari waaye daf ko mokkal xam lépp alquran boobu mu ngi am juróom ñaari at ñu ni loolu nu mën a nekkee fekk xel ma moo mag jëmm ja yonent bi salay sala fu mu jaar yàlla jaaree la na fa cheikh xoolal yonent bi ni mu doon màggee cheikhul xaaju malik mi ngi la koy jàngal ci xilaas ni shababuhu maa gulaamun shabahu abadan wal yow mu chahrun wa amun chahru dil karami yonent bi salay salaam li nit di màgg weer moom benn bis la ko daan màgg li nit li nit daan màgg at mu màgg ko weer moo tax ñi ko doon wër bëgg koo fexeel xamoon bu baax ci moom yàlla nag bëgg sàmm cheikh bëgg ko nëbb jëmmu cheikh lu màggee noonu mais xelu cheikh lu xelu nit di màggee weer moom benn bis xelam noonu lay màggee xelam li xelu nit di màggee at xelam benn weer la koy màggee moo tax mu teeloon a mokkal alquran mokkal gu wér li ko jàngal mooy boroom xam-xam bu yiw bu baax boobu Seyd Mahamad ibni Hamwin at Tijaani kooku moo jàngal Cheikh na Ahmad Tijaani Chérif radiyallahu anhu alquran jàngal na ko beneen sëriñ bu weex Seydi Isa bi Okaas almabawi at Tijaani ñoom ñëpp ay numaa di dëkk moom góor yàlla bu yiw la woon bu baaxoon ku ñëpp siiwee ci wilaaya jàngal na Cheikh na Ahmad Tijaani Chérif bëggoon ko torop parce que doon na yëg doonte xamul xam gu wér doon na yëg ni kii am na lu yàlla def ci moom te góor yàlla yu boobu kat moom lanu ni bis gént na yàlla ci boppam ni ko jàngal ma alquran mu jàng ko ci riwaaye imaam naafi mu jàng ko ci warsh yàlla ni ko nii laa ko wàccee woon kooku moo jàngal jàngal na Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu Cheikh nag bi mu mokkalee alquran xam léppi alquran ci la wëlbeutiku soxla wo jàng xam-xamu ciosan yi nit ki fiq al usuliyat wal furu'iyya wal adabiyya yoy yep xam xam-xamu fiq xam-xamu sharia xam-xamu mantiq lépp lo xamni dal nahwu tasrif bayan mantiq usul yep mu jàng ko jàng ko ba doon ci njiit doon ci kilifa goo xam ni ñépp d'accord na ni ni ku mel nii amu ci mu jàng ko tabaarakallaahu daan jàngale daan ubbee di jàngal nit ñi di leen xamal bi loolu mokkee alxuraan mokk na na mu war a mokkee xam-xamu usool yi xam-xamu furoo yi yëpp mokk na mu war a mokkee mu daal di topp nag yoonu sufiyanke ni ko waykat ba waxee ni fajaala fi talabi ahlillaahi aadati kulli abidin awaahi muy gëstu yoonu sufiyanke ba xam ci lu rëy rëy gëstu xam-xamu asraarul ilaahiya xataa tabaxara fi fahmi ulumiha ba mu géeju ci dégg waxuma fi ilmi fi fahmi ulumiha dégg xam-xamu lasraar al rabbaani al ilahiya xam ci loo xam ne kenn mën la ko làq ci ay axwaal làq ci ay maqaamaat làq ci ay ilal làq ci ay manaqiba ki manasib tabaarakallah mu mu nag mu teg ko fa nag soxla woo topp yàlla soxla woo topp yàlla sopp it jaamu yàlla jaamu yàlla ak topp yàlla du benn jaamu yàlla sa digganteek sa borom la topp yàlla sa digganteeg nit ñi la ni ngay jëflanteeg ñoom te yàlla kese tax yitteem ja yitteem ja daal di sopp dëddu Cheikh commencé dëddu àdduna di naafilay guddi bëccëg muy jàng di jàngale guddi muy naafila tabaarakallaahu jël yoonu yàlla subhanahu wa dema dema dema dem dem dem nag nag ba fi mu jaar ci xeetu xalawaat di wéetal yàlla ni ki nga xam ne góor yàlla bu nekk noonu nga def yonent bi salay salaam wax naa la léegi fu ko yàlla jaarale cheikh jaar na fa yonent bi alifan muska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakada nujabaau cheikh it foofu la jaar jël léppam di wéetal yàlla làq xam-xam ba jàng ci bépp sëriñ boo xam ne mu ngi ci aynu maadi yi jàng na fa la fa la ngay jàngale mu jàng ko ba xam ko lool daal di génn nag commencé di wër di seeti fépp foo xam ni war na faa mën a dem pour am fa xam-xam sunu borom subhanahu wa xiir ko mu dem jàng baraw seen sépp ñëpp di ko dégg muy jaar ci ay dëkk jaar ci ay gox gi jàngale ni ki Tilimsaan ni ki Tuunus wala Suusa yëpp sal Tilmisaana وتونو سن سل سوسة عن علمه سل سيد الإخوان سل أهل مصر وأهل مكة أهل فاسل سل عن البيضاني والسوداني يجب يجب دك يب شيخ جارنفا جانغلفا بيال دوغل ممجو في خمني مودي مارك nga xam ne da doon traversé rek di tukki miracle ak kéemaan tax mu des fa yooyu suñ ñëw ci suñu yeneen émission ci la ñu koy jàngale waaye daal ca la demee ba yàlla defal ko li mu ko defal moo tax mu naan waay na waay na makaani maa araf na makaani maqaamuna haada laa yasiluhu ahadun min al aarifin man kaburat sha'nuhu wa man sahurat sha'nuhu loolu ñu ngi leen di incha allah ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen bisu talaata bii ñëw tabarak ci asfiya point org ngeen suivre ko ñuy dem ak yéen ci Cheikhouna Tijani ni mu juddoo fi mu jaar li mu jàng ni mu ni mu ko jàngalee ba bi ko fatxu bi di dikkal fi mu jaar ci ay ay ay ñu mu jëloon ak ay muqaddam ba fatx bi bi mu koy dikkal ba maamam di ko feeñu nag rasulullahi digal ko mu jël suñu tariqa bi moo tax suñu tariqa ñun sunu émission sant nañ ci yàlla ci asfiya point org ah, nag benn la ci juróom yi nga xam ni nit mënul ñàkk ak moom muy suñu diine moo jiitu suñu tariqa sunu métier sunu daaira sunu yoonu tiwaawan wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.